waaw. waaw ñu ngi lay dégg waaw. dama làmb ji fi mu ne nii. waaw. gisuma ko gisuma ko. dégguma. ma gisuma làmb ji gisuma ko. Ousseyn lii ngeen gisoo lan. gisaguma làmb Ama Modou Lo. ndax lan. amaguñu fu ñu ko war a defee. muy ci signature muy ci signature contrat muy ca làmb ja amaguñu fu ñu ko war a defee amaguñu sécurité bu ko war a couvrir je li nga wax ni yéeme na de loolu moo am du neex dégg nag sénégalais yi ku ne say waxi bopp te Ama Modou Lo yàqu am na lu bari lu muy yàq ci làmb la ilaha illallah le cinq bii hmm. bu amul Ama bu amul ndax lii ma gis pareeguñu pour bëre ko li ma gis làmb ji pareegul pour am benn làmb jooju bu làmb juy am Pikine arène nationale ñaar seen face à face yi ñuy def amaguñu sécurité bu doy bu ko mën a tenir la ilaha ñett ama Modou Lo bu amul ama Gris Bordeaux du am am. dégguma. ama bu amul ama Gris Bordeaux du am Boy Niang ama du Boy Niang Modou Lo du am. le cinq bi. mais bouse le cinq bi kon kon li mu ëmb bëri na. le cinq bi li mu ëmb daa bëri. ndax pour ama Gris Bordeaux bëre. Modou Lo Boy Niang bëre foog Ama Modou Lo tas. la ilaha illallah. li may wax dëgg la wala du dëgg. lu am la. làmb laay wax man su may wax làmb du ma wax lu neex nit damay wax lii réalité damay wax lan la seen zee. mais bu te bi nga gisee Modou Lo mu bëgg combat nga gis Ama Baldé di jaay pour songu Modou Lo wuute la nga yëg ba ñaari kaa am na ku buggul làmb ji la ilaha illallah dégguma nga ne Modou Lo Ama am na ku ci buggul làmb ji am am na kuñ ci bett am na ku yaakaaroon ni làmb ji du jamono yi yëpp am na ku yaakaaroon ni làmb ji duñu ko bëree jamono yii yëpp far ñu bett leen ci dal ndax ku ne yaakaaroon na làmb Ama Modou ay décembre lay nekk ak ay premier janvier far ñu indi ko 5 novembre mu bett ñu bari la ilaha illallah am na ñu parewul ci làmb jooju am na ku buggul làmb monsieur li nga wax loolu làmb laa lay ci kenn làmb laa lay tegal làmb laa lay décortiquer te làmb mu jooju pour mu am fanam dafa man boo buus ne géntuma ko man man géntuma ko tudduma gént mais buuse bul fàtte ne Yékini ak Balla Gaye numéro 2 jàll na fi ba tey bokkul lan moo la utale lan moo la utale boobu Yékini daan na ñëpp dem ci xeew carrière am nekkagul di nekkagul ci digg doole Balla Gaye nekk xale bëgg yéeg jël roi des arènes ni làmb jaralu ko li làmb jaral ama làmb jaralatu ko li làmb jaral Modou Lo la ilaha illallah te boobu Yékini ay nitam li làmb jaral ay niti ama ak ay niti Modou Lo jaralu ko ay niti Yékini la ilaha ay niti Yékini jaral ay niti ama balde ak ay niti Modou Lo jaralu leen ko ñu demee ba Gambie. diine de gala am diine de gala de classe. nit ñu valeur yëpp toog. nit ñu am classe ñëpp toog. mbër yi ànd tuñoo seen sago nal xeex nga xam ne yaakaar am na lu xew lan la poussé lan nga yaakaar ndax xam naa ay information du lay gërës yaa ngi am waaye Ndakaaru dara du la fi la lan la li xew waaw damay bàyyi ba ñu waxaat ci Ama Modou Lo waaye Ama Modou bu dee Tapha Tine Tapha Tine bu dee Ama Modou Lo xaar pour wax ñu wax. Boucher dégguma li nga bu ñu beral leen seen bu dee Ama la ñuy xaar pour wax ñu wax. ndax lan. ñoo ñooñu paree guñu pour wax paree guñu pour jëflante. Boucher lan moo nekk ci diggante Ama Baldé Modou Lô lan moo nekk ci diggante Ama Baldé Modou Lô Modou Lô mi ma gis mu waree Gambie jëm Sénégal ma gis ko état de forme bi Ama Baldé mi ma gis Modou Lô jug di tuus di fecc war di dem ci Pape Diouf muy fëgg taabal ji ñu mën a tutee boppam lan moo nekk ci diggante Ama Baldé Modou ba tey ji jàkkaarloo mënu ci am Boucher. chaque jour nga gis ma ma ubbi sama làmmiñ bu rëy bi di jàkkaarloo mbër te dara newul ci man xaaral ma naan lu sedd tuuti li ne ci xol yi kenn mënu koo xam yow mii sa jëmmi bopp rek ko mën a xam man fi mu ne nii li may yëg yow mënoo xam li ne ci man man maa la mën a wax li na ci man te man bu ma neexee lu ma neex laa yëngalee waaye yooyu sag la rek tele day koy jël rek waaye ñoom ñaar wuute da ngaa jàpp ne Modou Lo daa parewul wala da ngaa jàpp ne Ama Baldé daa parewul am na ko ci bugg te bëre ci datu la cinq bi ñu jëm maay wax ak yow soo waxee ma dégg la seetaanal nag maay wax ak yow buuse dooñu moo lii tuuti ngir jëmmi yeneen bi ñu xam ndax làmb ji sëriñ mën na ko yàq ñoom seen bopp kenn ci ñoom mën na ko yàq wala ñoom seeni supporters ñu yabal leen ñu yàq làmb te dégguma li nga wax nga ne dégguma ko dégguma li nga wax seeni sëriñ mën nañoo yàq làmb ji wala kenn ci ñoom yàq làmb ji wala ñu yabal seeni nit ñu yàq làmb ji la ilaha illallah muhammad rasulillah la ilaha illallah te beus wax na la wax ju am solo mooy lan làmb jooju ba arbitre naan prive bu arbitre ne prive sax gëwma moom ba arbitre prive la ilaha illallah lamb jooju fa Ama war a taxaw bu dee dee nañ siffle nee nañ lamb ja ñëw nañ ba ci biir géew fi Ama war a taxaw mut Lo fa lay bëgg a taxaw fi Modou Lo a taxaw fa la Ama a taxaw. Modou Lo buy wis lu ko Ama laalale mooy lamb ji yàqu na lu ko Modou Lo laalale mooy lamb ji yàqu na ndax ñoom ñaar kenn wóoruwul ci morom lu toll ni tarafa kenn du ci muñal maanaam li mbëri di def muñalante comme. Yékini lam defoon ak Bombardier ñu ñu naxtaan mu bàyyi loolu du am ci làmb jooju làmb jooju kenn du muñal kenn lenn. pare boo leen ko tëgg làmb jooju xaalis bi bari la ñi koy tëgg am nañu xaalis am nañu sponsor am nañu jàppale mën nañu organiser mën nañu bis. mën nañu événement waaye làmb jooju ci ñaari mbër yi la des pour mu am. لا إله إلا الله maa ngi fi yaa ngi fi sept cent personnes ñu ngi seetaan àdduna baa ñuy xool nañ dem mille personnes ñu ngi lay seetaan ci YouTube bi en direct nañ dem mais Boucher Boucher ndax la nga daan gis ci Modou Lo yaa ngi koy gis ci moom ba léegi ndax la nga doon gis ci Ama Baldé yaa ngi koy gis ci moom ba léegi. xam nga làmb dafa doy waar te làmb Ama Modou Lo fi ne nii daa ànd ak tension boo xam ne ku ci ne mën na laa mere waaye Fadam am na ci koo xam ne làmbatul am na ci koo xam ne deadline am na koo xam ne làmbatul am na koo xam ne li des na mais fekk un mois ki dese mën naa am dara wala bu dee amul dara lu ko mit bu dee wér na bu dee amul dara lu koy metti bu dee am na jàmm mën naa am loolu waaye ki nga xam ne làmbatul foog mu duggaat ci làmb Boucher lan nga yëg yëguma làmb jooju de Fada man jot naa benn information waaw CNG nee nañu combat yi nekk suñu kanam lu leer nañ nañ nañ mooy teemu bañam Fadam ndax Ama Baldé fii mu toll ci làmb Falaye Baldé di bàyyam ndax Ama Baldé ni ko pikir ne yàkkamti ko ndax Ama Baldé lii mu wax ci làmb dans cinq ans bu ñuy annoncer roi de arènes am ndax war naa jàkkaarloo mu Lô di am li mu hésité Modou bi ak ñi mu daan ci làmb Modou Lô ak ñi mu bëri ci làmb Modou Lô ak li mu def ci làmb buusee ndax Modou Lô am na li muy calculé ci digganteem ak Ama Baldé bu fekkee ne moo mën Ama Baldé bi muy wax dëgg la ndax war naa bañ Ama Baldé di ko xëpp dara ndax buusee Modou Lô laa daan dégg muy wax benn baat lu ma sëriñ def loo ma def ko. Fadam Modou war naa mën a bañ mbër xëpp ko dara te lii ma lay wax man maa la koy wax Boucher. Ama Balde dina xëpp Modou lim bu ko bëgg xam. xanaa koy xëpp day fekk nga jege ko wala ngeen gisante. la ilaha lii ngay ñu yëpp li ko ñu dugg ba ci biir géew bi ba ñëpp génn ñoom Papis Jéegaa nag ñoom maanaam Seera Sène ñëpp génn làmb ji bàyyi leen ñoom ñaar seen diggante ndax loolu dina am. ndax Modou Lo ak Ama arbitre dina taxaw ne Modou Lo pare nga Ama pare nga ndax loolu seeni ndax loolu seeni supporters dinañ leen ci bàyyi wala seeni nit. buuse dem Gambie gën a métti signature te mbëri dem nañ Banjul. bokkul de loolu ku ci nekk yoonu. fii wax ak yow ñu ngi waaj a jàpp deuxième signature bi. dama ni te balaa. loolu deux jours trois jours. di nga dégg ñu ne jàpp nañ ci place sangam. waaw te place bu am sécurité la. place bu naqaree dem ci Sénégal la. waaw fa war a defee signature Ama Baldé Modou Lô te ku ci nekk kenn nit nga àndal. waaw loolu. loolu moo mënta nekk. laay loolu mënta nekk. lu tax. ala ñan kenn du jege foofu. li entoure affaire bi. loolu lii ma lay wax nii. lii ma lay wax nii. ñu ngi waaj a jàpp signature Ama Baldé Modou Lô Tapha Tine Eumeu Sène bu Tapha Tine di ñëw ménagère am lay àndal wala mu ànd ak homme de confiance am bu Modou Lô di ñëw ménagère am lay àndal wala mu ànd ak homme de confiance am bu di ñëw. Ah. am ménagère am lay àndal wala mu ànd ak homme de confiance am bu bu Eumeu di ñëw noonu la comme noonu te fañ koy defee fañ koy defee gendarmerie boo koy entouré ak police. képp ku ñu joxul bat yi pour nga mën a dugg signature bi doo fa jege ñëw na ñëwoon ay lakkaramos nga lay mujjee ndax ñu ne sibité ak policier yi <laughs> ay waay yàgg naa wut coow waay tey laa koy doog am yenn activité ama buy ñëw lu mu bon bon cent vingt deux carte lañu ànd ak moom mudloo moom force ñoo ñeeñee rayante seen biir ba ci mais Boucher lan moo nekk ci combat bi ba tey jii lan la lan la waxuma waxuma rek may ma ko rek cinq minutes rek lan la lan la Boucher lan la. ca la nekk communiqué la ba njëlbeen Ama ba muy nekk xale ba muy njëkk commun ba muy jàpp Modou Lo di ko sànni sabar ba sabar ba muur. waaw foofu la commencé ba tey. dara xamatuma ci dara xamatuma ci dara li ma wax rek mo moy lan lamb joju fenn rek nga mëna defé signature mu egg muy fan jamono ji muy fan moy nga jël meur indi len états-unis wala ngeen indi len france wala nga yobul len italie ñu signature signature bu neex. jar na ko. jar na ko. jar na ko jar nañ jël yóbbu leen législatif bu ñu xoolee ba làmb ji mënut a am Dakar ñu jël ko yóbbu ko bés bi nañ bëree làmb ji Paris. ku baax tigil caméra bi. day fees dell te du am xeex doom xuloo. Mm-hmm. nañ ko bëree si France Bercy wala ñu bëree ko Dôme de Paris. Boucher lay tàggoo. Boucher dugal naa ko yéeme. Cheikh bi maa lay siyaare. yàlla yàlla nangu. ah Boucher lay tàggoo. yàlla yàlla nangu. ki ma dal tey tey ngeen di dégg coow tey ngeen nar a dégg. loolu tax maa maa maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bàyyi yaay nit ñi ko laaj nañ jël làmb ji signé jee ko Italie wala France jël làmb ji yóbbu ko Dôme de Paris wala Paris wala wala wala wala wala wala wala Bercy ñu bëree fa làmb ji te day fees dell ba pare mooy ëpp bénéfice foofu mooy ëpp sponsor. jërëjëf jaajëf.